nag dafa def ay erreur yu bari Cheikh Khalil. wallahi dana dana dana kii nopp de. dana am ñoo marqué de. dana marqué ñu bari ah. mais dafa am. ndax euh, ñu ci bëri seen njàng si ñu baal ma dafa soriwut. ndax dañuy jumoo ci téere yoo xam ne yu jara jàngat la su ma ko tuddee tey ñu bëri danañ ci doog a bàyyi xel. mooy téere bu demee ni Cheikh Khalil par exemple. muy la wala Sani. Cheikh euh, wala nga dem ci. risalatu ibnu zeyd ibnu abi zeyd alxayrawaani encore wala nga dem ci muqaddimatul izziya muy téere yi gën a siiw ci fiqu malik wala sax mu mudawwana li imam malik kon nag Cheikh Khalil dafa def ay erreur yu bari Cheikh Khalil wallahi dana dana dana kii nopp de dana am ñoo marqué de dana marqué ñu bari ah. mais dafa am yoo xam ne dañ ko war a bàyyi xel loo tuddee erreur yow. waaw erreur yi mooy. Hmm. boo demee ci Cheikh Khalil. andi na cent muy téeméer ak ñeent fukk ak ñaar ci taawilaani hmm. mu ñaari dégg. andi na téeméer ak fanweer ak ñeent ci xawlaani. téeméer. ak ñeent njëkk ba. Hmm. téeméer ak ñeent fukk ak ñaar ci taawilaani muy ñaari dégg. andi téeméer ak fanweer ak ñeent ci xawlaani hmm. andi na juróom-ñeenti fukk ak ñaar juróom-ñeent fukk ak ñaar ci taraddudun hmm. andi na fanweer ak ñett ci xilaafun hmm. ndax lii jàmm la ndax boo bëggee référé lu wér ndax danga nga ci ñaari dégg ay wuute ak ñaari wax ak wuute ak ak yu demee noonu do am do am sañ-sañ tarji do am sañ-sañ tan len amo ci sañ-sañ su boba mo indi li borom xam-xam yi legi ci tele yi di def. Hmm. nga lañ len ben question ñu war ci tontu xamuñ tontu ba ñi layee ne yi dañ ci def ñetti patch nee nangam khilaf bi ñi borom xam-xam yi wax nañ nangam. borom xam-xam yi wax nañ nangam boroom xam-xam yi wax nañ nangam yow ma doon laaj lu lay jëriñ ci loolu gindee goo ko gindee goo ko gindee goo ko dara wéragut mm-hmm. loolu moo ñu ko wutee Cheikh Khalil léegi nag danaa ci ñëw mm-hmm. boo xoolee téere bi mm-hmm. yàq na ci ci ci ci ci ci ci ci yoon wi lu bari ñoom dañoo dem ba wax ne boo waxee sa jabar fase naa la ñetti yoon nee nañ araam na dootu daganit lu muy banda zaw ji Cheikh Khalil la ko wax loolu yow d' ci déedéet. loolu diine de. boo boo nee d' accord indi dalil loo indi dalil. gis nga fase naa hmm. boo ko waxoon junne yoon it dañuy wax ne attalaaqu marrataani. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi nuyu mbokk yi di leen ziar di ñaan te defal leen ko. ñaari mbir mbokk bokk li tax ma indi ko mooy rek ngir am cee jàngat yu gàtt yoo xam bëgg naa ko ci def xam naa ne aju ci wàllu uh, Muxtasarul Xaliil gis naa am na benn mbokk bu ci def ay leeral uh, donte nag tàmbali naa ko rek mais jàpp naa ne am na loo xam ne bëggoon naa ko moom indi na ko loolu dama koy bàyyi uh, tarkiis ci li nga xam ne am na ci ëpp su ma mën naa wax ne ay laay biir lay doon. jëmale ci eh, ci waa tasawuf rawatina nag ci tijaan bi tey yan bi tey wax dëgg yàlla amel nañu àq moo xam yëg na ko moo xam yëgu ko ndax émission boobu koy seetlu nga gis ne ci at yi ñu génn nii dafa am lu mu jugtee mooy dafay dem di dénicher ay nit ñoo xam ne moom damay jàpp li ma njort mooy da koy biir ne xamuñu dara ci diine ay nit lañu la war a toog déglu te waa ji ci la bokk dara xamu ko waaye dafa am benn feebar bu leen dal mooy feebaru dëgër fit mooy dëgër fit koo xam ne kenn du xam rek nu fu mu toll te bi tey moo gën a xam ne senegal ay nit la ñoo xam ne ñu ci bari ni ko benn mbokk doon waxee seen xel yi am mbàq mu tooy la loo ci ji mu sax lu nit waaye di waaye di lu nit wax lu suufi xam-xam suufi xam-xam di gis ay nit ñu koy tasaare naan ak am xam-xam doo <laughs> xam da ngay jooy xam da ngay reetaan mais bii tey ñooñu lay indi xaw ma nag lu ko ciy luy jubluwaayam ci loolu laal la dafa gis ne peut euh, ci ñaa nga xam ne ñoom ñooy mag yi wala nga ñoo xaw a féete kaw ñor ci sawuf laal la am na mbir yoom duñ ci dugg wala jàpp na ne seen détermination pour contrer wa na euh, dafa des àlla doy la wut lam leen lan leen di wax leen mun xanaa naa wut ay li njot la rek naa wut ay ndaw yoo xam ne ñoom dëggan nañ fit ñu mel nañ yàlla ñëw jàmbar la ko waa sunna moo tax ngay gis xoolal xoolal am na ñoom suñu ndaw xoolal bi tey ci at yi weesu ñu muy invité ñoo xam ne ñoom ñëpp ñoo bokk ñoo bokk profil dootu kii moom moo ci yées moom moom dara xam ko ki tàmbaleegul sax mais xoolal Baye Niass maa ne dara xam ko dëgër fit mais da ko bis da koy indi pour mu ñëw dal ci Bukhari te à chaque fois day indi nit ñoo xam ne li ñuy dal mooy ci téere islam yi mën na fi ba Niass ba Niass nga xam ne àdduna bi yëpp dañoo seede ne narkat la bu mag mën nañ ko fay lu fukki nar yoo xam ne Baye Niass nar na ko te moom du ko weddi kenn du ko weddi ne mar nar na ko fi nar na ne daa bind pour daa bind xasida xasida ba xasida jàmbur la <laughs> nar na fi daa bind téere boo xam ne mosu koo bind téere la nar na fi dafa seetaan fi ab film boo xam ne film bi kenn mosu koo seetaan film bi balaa moo génn lañ ko lañ ko la ko la yi daal Euh, euh, comment s'appelle censuré naroon na fi ne dafa bind beneen téere ci yoo xam ne ay article ay titre article la jël ne ma ko bind ay nar yu baree baree baree bare mooy dëgër fit mooy la may tudd nii ba nga doon ma koy damay damay fàttali rek may bite tey ñi muy éviter nguur si mel noonu lu bi tey éviter ci taxaw xam ne ferut iji ci dara mu taxaw di di saaga mu ngi tudd imam ahmed ak al buxaari ak zuhri ci émission ñu déeta waay bi tey bi tey mooy ki évité sang njaay sang njaay ki tasaare tax ay fenam yooyu tas mooy moom xutbu zaman la moom moo fi nangam bi tey moo ko évité parce que sang njaay di ko di ko di ko di ko di ko di ko jaajëfal ne boobu ci loog ñu bari ci ñu ko toppee te bi xam na ne sang njaay di wax dëgg bi tey benn waay boo xam ne <laughs> xam naa daa ko woote xam naa dana dem di di di di di weerenteeg uh, roofi dañu dégul ko ay subaat mu ñëw ñëw taxaw commencé saxaabe yi am ñax daal loolu foofu sa biir tey am na ku mu invité woon pour mu mun koo mun koo mun koo weddi bi tey ñii soo ko doon topp doo fi doo fi jógee bi tey ñoo xam ne li dañoo dëgër fit te seen saa yi bu ñu ñëwee ci émission bi la ñuy def rek mooy attaquer l'islam xaw man da koo def na jàpp na loolu su ko defee moom dafay xeex waa sunna wala daal dafa bëgg émission daal di gën a amee vue jàpp naa ne sax loolu moom pa weesu na ko nga doo comprendre lu tax muy invité muy invité fekkee daa bëgg ñu wax ci sawu wala boog daal di contraire wa sunna laal la jàpp naa ne am na ci nag ñoo xam ne joasasu ñoo xam ne mën nañoo am sax lenn ci xam-xam tuuti donte nekk ci neen moom ba nga xeex dëgg la sëgg da cuune soo nekkoon ku xam dara sax da ngay cuune mais jàpp naa ne am na ci ñoo xam ne sax war nañoo mën a jéem a défendre tasawuf dal ci waa sunna ci anam goo xam ne dina doon anam gu gu xaw a xam-xamee waaye gël ku mel ni indil ñu ko xaqiqatan nga nit ñi bëgg koo tontu nit ñi jël seeni temps di ko tontu te waa ji xamul dara dara ba dara boolo dëgër fit kese la def ba dëgg àq la xaw ma nag bii tey li may wax nii su fekkee da koy dégg bu ko jàppee dara nasiha la rek yore nañu àq bu mag àq bu rëy rëy ndax soo gisee vidéo yi mel nii nit am nañ am jot lu bari dañ ko def mu waxee nekk di tontu waay ji te wax da ko ci <laughs> ci lenn rek loo xam ne dina am cofeex lu xam-xam loo xam nga jàpp ne lii mën naa mën naa ko tontu ngir ndax subax la li tax koy tontu rek mooy ne tasaaroo na ay nit koy tasaare moom sax nga koy bëgg ko dimbali ndaxte moom jàpp na ne fi mu nekk nii moo ngi wax wala boog moo ngi difee nit ñi ci mbir yoo xam ne kenn mënu koo tontu loolu nag beneen mbir beneen nasala mi indil mooy ci laal Sénégal war nañoo xoolaat ni ñuy jàngale mbir yi mel nii donte eh, am nañ ci bari des fois yi may jàpp ne am na benn problème mu àqal bu ñu am mooy xel da ci di ciy dugg fàtte naa tamit bi tey moo fi évité Mbacke Sakho moom tamit Mbacke Sakho fit rek la am amul <laughs> di eh, tasawuf laal la ñuy jàngate war nañ cee bay xel benn mbir mooy la àdduna dafay dafay évoluer avant ñoom nañ jàngale ay téere ba nit ñi téere yi lañ xam ay téere fiq la eh, mu nekk yoon boo xam ne yomb la ci madhab Malik mais yenn saa yi ba waa na wala boog ba waa sunna fisi ndax waa su ñëw fi jiitu waa na loolu beneen débat la waaye nag na sunna ba tàmbalee di leen eh, seen i ndaw mu màgg tàmbalee di leen eh, di leen di leen dal naam insiste nañ ci yenn mbir yi ma insiste nañ ci mbir mbir yoo xam ne mbir yu l'islam ibbi la xam ne ci wàllu fiqh eh, nekk loo xam ne dafa war a indi tàqali ko xiiroo ngaayoo lu wute goo xam ne daal ci biir lislaam lees mën a nangu la ci wute yu bari ci fiq ñoom la àll ngir rëddatu fi'l bi nga xam ne mooy jéem a delloo ndax waa ahlu sunna fi ñuy dalee waa tasawuf nekkul ci wàllu fiq ndax mën nga gis ab salafi boo xam ne maliki la loolu maa fi xibaar madaahib al arba ahlu sunna dañ ko nangu nante leen jamono ji ñëpp ci salafi yi mën nañ salafi yu ne bokk la ñenn ci bokk ñi ñi nga xam ne la àll ci ndaw ñi ñu bari mën def entre guillemets ñuy tuddee la mazhabiya donc am na ñu bari ñoo xam ne ci mazhab lañ nekk ñi si mazhab maliki malikiya ñi si mazhab alxanaaf ñi si mazhab shafi shafiya ñi si mazhab xanabila hanabila yi ñoo ci ëpp kon foofu noonu nekkul mooy problème ahlu sunna wa tasawuf ci wàllu mazhabil fiqh yi am nañ say dañ koy dañ ciy taral loo xam ne nekkut mooy wute gi gi wute wutele tasawuf ak ahlu sunna ci wàllu gis weer ak weer beeg julli qabdoog julli nangam yooyu yëpp ay masaal yoo xam ne yëpp ci fiqh lay del rek dañ saa ñi taral ko taral ko ci ba bëgg koo def masaal boo xam ne dafa fajar Coro Ngaañoo li tax mu bëgg wax li mooy nag ñoom ci loolu dañuy insister seen ndaw yi insister bëgg jël loolu parce que peut-être bëgg nañoo préserver liñ jàpp moom loolu moo la euh, moom ñoom mooy mooy seen loo xam daf la seen dono la wala spécifique la jàpp ne ahlu sunna ñoo bëgg ko fee jëlee ba ñu dañuy tarkii ci ndaw yi jàngal leen mel loolu noonu mu rek mooy fiq loolu nag mooy indi lii parce que léegi jamono dafa ibbeeku koo xam ne xam ndaw yi dañoo sob te xamuñu dara euh, taasil bi war ñoom amut léegi suñ demee gis leneen am benn caay-caay gu nekk ci ak ndox dañuy jàpp na en fait Sénégal ñu fi nekk ñëpp lii ñoom ñu gis ni xamuñu ko te su fekkee ne seytaane doole na ci nag bëggug siiw gi nga xam mooy mooy mooy daaw jamono ji bëgg siiw gi tasaaroo xam ne a siiw waaye dafay ñëw ah na man gis naa loo xam ne kenn gisu ko foog mu ñu daal di koy wax léegi su ko defee ñoom nekkut ne waa sunna la ñuy sonal de seen bopp lañuy ñuy sonal ndax seeni ndaw seeni nit. la ñuy jeex jeexal ci seen jaamu yàlla te li nit ki gën a moytu war a gën a moytu mooy di jeex jeexal nit ki ci ay jaamu yàlla waxuma nag li nga xam ne ay pas-pas yu bon la waaye di ko jeex jeexal ci ay yàlla donte nit ki jàpp na lii wér na donte ab madhab la nekk ñu jàpp jàpp na na di ko jaamu yàlla sama baakoog loolu mais nag ñii nga xam ne ndaw ñi nga xam ne dañ leen di dañ leen di yare dañ leen jàngale dafay dañ ciy sóoral waa sunna di leen insister loo ci mbir yoo xam ne waa sunna ñoom nekkut loolu mooy seen problème ak ñoom suñ demee daal di àdduna bi ubbeeku demee daal di liirantu rek gis leneen rek nañ jàpp ne ñoom kon gaa yi senegal yi xamuñ dara waaye jafe-jafe jàpp na moom Sénégal <laughs> moo fi raw <laughs> dafa am lu bees lu mu découvrir mooy ci téere euh, Muxtasaru Xalil am na ay njuumte am moom moo ko gis moom moo def juhdam yoo xam ne dont da koo bind di liir <laughs> léegi foofu ñëw wax ko nit ñi tasaare ko léegi nag juhaal dina waa ji moom xam am na xam-xam loolu li ko war mooy war a xoolaat peut-être méthodologie bi ngeen jàngale ci xam leen ne ñi ngeen jàng fiq maliki fiq la boo xam ne imam am am na yeneen mbir moom euh, peut-être mag ñoom seen ijtihaad ñoom sax seen biir da doon wuteeg seen ci fiq ci yu bëri peut ne mbir yi ki lii moo ko doy ci lii yenn saa yi mu daal sax mën a nekk ci mazhab bi dem ba gis ne dalil bi wutee naag mazhab mu daal di dalil daal di continuer nekk ci mazhabam waaye seen continuer nii nii rek lay def seen continuer tëj nit ñi ci seen affaire yi nii bëgg a contré waa sunna da àdduna ubbeeku na dañuy gis leneen ñoom daal di daw dem feneen yenn mun na ñoo daw ci lii yées ak ngeen nekk yéen kon bàyyi leen xel di bàyyi di di jàngal nit ñi di leen xamal ne lii ngeen jël nii madhab bi sangam madhab la comme yéen madhab bi mu amee da leen moytu da leen éviter ñu mel nii suñ demee gis leneen <laughs> jàpp ne leneen loolu ñoom dañoo ko gis fekk na amaan ña leen ko jàngal xam nañ loolu baax بعدين لما قلنا جانجل من يوم بهرك نحت ليري جل أب مذهب تبقو ولا بق مذاهبي نجر يوم بلق لينا موي فقلا بعدين كت لينا موي موي موي غابي ليلا أب ناسي هلا بوان بقونا كو جبر يسفك يري جن دق سما سما سما يكاد جن دق سما ناسي ها جن بعيد خل نجر نيو نابول نيو بانيو سلمو نحت سنين قال نيو ور ليجند دفع باري لول نيو بقى يبور ليجند كوسا يبون خيرك أب جاهل بقابل جاهل مركب لا داير جوجي فيه xom xom fu mu fàqee ñëw ñu bëgg a nekk ca di ko tontu lay def ñuy def ñuy perteloo suñu temps te biir yi ñu war a lijjën dafa bari lool lool lool lool lool lool lool lool lool lool loolu daal bëggoon naa ci bàyyi xel bala ñoo nag ci waa ji dëgër fit gi mu dëgër fit ak yabaate gi mu yabaate ak mbir yoo xam ne yàlla àll nit ñi bàyyiwuñ ci xel sax maanaam vidéo bi daf leen rëcc wax ne kon waa ji mooy xaatu bu lay sa bëgg moo tudd ci moom ndax xaatu bu lay dina am sa ay matt yoo xam ne dina ko dajale yóbbaale ay ay jaam ñaam góor mais koo xam ne moom dara da ko yoru en fait daa yoru benn bagage li koy firndeel moo ci ñaari vidéo yi dañ bàyyi xel ci ñaari yi mu ñëw. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. nam xabibi Cheikh Mor. xayaakumullah. Jamil gis naa vidéo bi ma yónnee. vidéo bi nag ka siy wax man miinuma ko wala xawma ko. waaye nag dégg naa ci biir vidéo bi ñu koy woowee Ousmane toure vidéo bi nag daanaka seetaan naa ko ba mu jeex waaye vidéo bi doo ko seetaanee ba mu jeex dañ ci yégee ñaari mbir mbir bu njëkk bi mooy dañ ci yégee ne kii di wax la muy wax maîtriser wu ko day làmmatu rek waaye la muy wax maîtriser wu ko looloo waral nga gis ko di jàng aay da koy yàq ahadis yi yenn yu mu indi wérut ya wér yi na mu koy jàngee du noona te alimaamu rahmatullah alayhi dafa wax ci téeram ba tanwirul xawaalik ba muy saraa muwatta dafa wax ne xadis ba man kadaba alayya mutaammidan falyatabawa maqaadahu min annaar da siy dugg koo xam ne day jàng xadis di ko yàq lu ñu tuddee lax tax علم الحديث مو ام فن guñ tuddee التصحيف والتحريف nga xamne ñom dañuy i'tina bu baax walu qiraatul hadith noy jange hadith xadis looleer bo demone rek ci alfiya bu al hafiz al iraqi rahmatullahi alayhi mo ngi ko fay yaxal wala nga dem ci saramba at tabshiratu wa tazkira waaye nak ki dugulet moom mu yàq hadith ngir man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib kim nako arab do xey ñaan li yëg-yëg bi moy dangay ngay ñu ñu ngi ci mujjanteeli jamono looloo waral nga gis koo xam ne jumla mufiida mënu koo bind ci arab nga gis ko muy tataawul ay boroomi xam-xam boroom xam-xam yi nga xam ne daanaka ñu bokkal jamono ak ñëw ci ginnaaw ñëpp ko seedal xam-xamam téeram boobee di muxtasar nga xam ne ñëpp dëppoo na ci ngiir bi delluwaay la doo bëggee xam xawlul mashhur wala xawlu raajix ci ngiir bi ñëwoon ci ginnaawam fon fonkoon ko lool nga gis koo xam ne jumla mu fii de mënu koo bind ci arab koo koy may taxaw di kirite ko kooka te loolu daa bokkoon ci alaamaat yi nga xam ne day wane ne ñu ngi ci mujjanteeli jamono kem ni ñëwee ci xadisu anas radiallahu anhu xadis baa ngi ci buxaari yonent bi nee na bokk na ci mujjanteeli jamono dañuy yëkkati xam-xam réer day bëri xadis bi heure boo demoon kitaabul mufhim li abil abbas al qurtubi rahmatullah alayhi moo ngi ko fay leeral leeral gu am solo ginnaaw loolu nag déglu leen ko muy wax ne xalil dafa def ay njombe ci téeram bi moom ak ibnu abi zirin al xayrawaani ci téeram ba risaala waaye daanaka xalil la gën a insisté moo tax si xalil yem rek ngir tontu duñ tontoo xalil rek daana tontaali neen ibnu abi zirin al xayrawaani rahmatullah alayhima jamian léegi di téere bi di muxtasarul xalil téere bi foog nga xam fan la tàmbalee ba pare nga doog ci wax awalan téere bi nekkul xalil moo ko ibtikaar nekkul xalil moo ko iqtira bi maanaam nekkul xalil moo toog rek bindi ko waaye dafa fekk téere jàmbur mu résumé ko lu ñu tuddi ixtisaar dafa fekk téere bu tudd jaami al ummahaat bu ibnul haajib al maliki rahmatullah alayhi xalil ixtisaar ko résumé ko te jaamil ummuhaat bu ibnul hajib moomee moom tamit daa fekkoon kon beneen téere jàmbur boo xam ne ibnu saasa moo ko bindoon mu ixtisaar ko ibnu saasa te téere bu ibnu bashir ki tudd atam atanbih mu ixtisaar ko ibnu bashir tamit daa fekkoon téere jàmbur bu tudd muqaddimaat te ibnu rus al def ko mu ixtisaar ko ibnu rushd tamit daa fekkoon ab téere bu tudd at tahzib bu al baradii wala al barazii ala xilaaf mu ixtisaar ko téere boobee tamit tahzib daa fekkoon beneen téere bu bu tudd al muxtasar maa fi muqaddamatul kubra bu ibnu abi zerin al xeyrawaani mu ixtisaar ko ibnu abi zerin al xeyrawaani daa fekk téere bu mag ba al mudawanatul kubra bu suxnun ibnu said at tanuqi mu ixtisaar ko al mudawanatul kubra mooy al umm kitabul umm doo ko déggee ci ngiru Maalik téere boobu lañ ci namm téere bu mooy marji al awwal fi madhabi al maliki lu ñu tuddee ummaatul kutubul malikiya ñeent la kéem nu ko azabidi waxee ci taajal arus waroon wax ummahaatul kutub ummaatul kutub lu ñuy wax waaye nag alxadbu fii yasir ñeenti téere la téere bu njëkk mooy kitaabul mudawwana bu suxnun al mudawwana sa am na histoire ngir ki ko ñi ko taalif nekkul suxnun asad ibnu furaat moo ko ñu ko taalif histoire bi daanaka jaruma ci dugg waaye nañ jàpp rek bu mujj bi te mooy bu suxnun bi al mudawwanatul kubra bu suxnun boo mooy marjal awwal ñaareel bi mi kitaabul waadixa bu ibnu Habib Abdul Malik ibnu Habib ñetteel bi mooy kitab al mawaziya li ibnu Mawaz ñeenteel bi mooy kitab al otobiya li Ahmadul Otobi ñeenti lañ tuddee ummaatul kutubil maliki ñooy al masaadir yi nga xam ne maraaji la ci madhabul maliki xalil nag moom bu mag ba te muy almadootul kubra moom la fekk ñu ixtisaar ko ixtisaar ko ixtisaar ko xalil ñu ixtisaaral ko si ñu wax ne xalil muxtasar xalil ixtisaar na ci jaam umuhaat même loolu am na werante ci biir ngir bi mais man li li gën a wér xëy na wala lu ñëpp wax loolu laay wax fii mooy xalil dafa ixtisaar jaami umuhaat li ibnul haajib xalil nag moom ba mu ko ixtisaaree yemul rek sax ci jëmm téré bobé waaye da ci dole yeneen téré yu bokkut ak jëmm téré bi da ci bolé ñent téré da ci bolé téere allaxami bu mu tuddi a tabsira da ci bolé sarhu talqin bu al imam al maziri da ciy boole kitaabul jami' al-ibn yunus da ciy boole kitaabul muqaddimat li ibn rust al jadd ñent téré la ci bolé mom sa moom koy leer si muqaddima téereem bi er bu waxe wa bil ikhtiyar مانكي نمو اللخمي وبالترجيح مانكي نمو لابن يونس كتاب الجامعة أربو وخي وبالقول مانكي نمو الماجري وبالظهور مانكي نمو آه، ابن رس الجد كون ينتي تيري خليل دولي وات تي تي مختصر خليل بي تري ونك امنا ينن بروم خم خم يوم جلي وات يبوكو تك نينتي بروم خم خمي غير نينا سا سي بير تيري بي تي مقدمه تيري بي lu mu waxee suxixa wala na maa ngi ci namm ñeneen ñu wéral ñu bokk ak ñeenti ñu ma njëkk a tudd loolu moo ngi koy mu si muqaddima téeram bi kon xalil téeram bi nii la moom nag moo bind al awwal moo ko bindi moo ko tahzib waaye al saani bi bindu ko maanaam da koo bindi waaye jotu koo tahzibaat far yàlla jëlee ko fi aw nongam moo ko tahzibaat mool ko Cheikh Khalil na téeréem bi di Muxtasarul Khalil madhabul Malik dañ koo fonkoon lool moo yóbbee yenn ci borom xam-xam yi ñëw ci ginnaawam sax heure boo waxoon wax ju wuteeg Khalil ñoom duñ jël sa wax Khalil la ñuy topp ku mel ni al-Laqaan yi ci borom borom Manaarul Futiya borom xam-xam mag ba daan wax nahnu Khaliliyuun in dalla dalalnaa ñun moom Khalil rek la ñuy topp. moo yóbbee Ibnul Qayyim rahmatullahi alayhi sax mu ne madhabul Maliki dañoo am sens ba xalil ñëwee seggal leen ngir bi ci ay fooy xataa loolu tam al imaam ngiru al imaam Saafi'i daan nañ wax loola ku mel ni eh, yenn borom xam yi ñëw ci ginnaaw xalil te ñu ngiru Saafi'i ya kon loolu mise la ci nga xam ne ñu saraa bi rek mën na ñaari junney borom xam-xam ñii saraa ko ko ñii def ko xaasiya waaw ñaari junney borom xam-xam yooyu yëpp. nguur sii di Ousmane Touré nee na ñoo ay cuune leen bi maanaa fekki neen ay ñoom ba ci tiiri xalil waaye leeraluñ ko dañ ci noppi ndax li xel fekkee na ko xel fekkewu ko lii nag day wane ñàkk xamam ñàkk xamam rek si ngir bi waaye du xamoon ngiir bi ni muy doxee xam ne ngir gi du moom du def taasub ci kenn du waxee nii léegi nag la ko rey nag mooy la mu wax ne xalil dafa def ñombe ñu ko doon xaar mu génnee ñombe yi waaye la mu génnee moom dëgg-dëgg maanaam dañoo dafa ruslu lool la mu génnee si njuumte yi mooy xalil dafa wax te raddada ak luñ tuddee xawlaani ak luñ tuddee ixtilaaf nee na loolee werante du amee yow ba léegi génnee goo kon xalil ba léegi waroo koo jël loolu ñàkk xam ñàkk xamam la dong la lay wane waaye xalil xalil waxul loola xalil dafa am luñ tuddee istilaaxaat ci téere bi min baab al amaana ilmiya xalil bëgg laa jàngal ni sama téere yi sama téere bii di muxtasaru xalil bii nga xam ay nit ñoo ma sàkku ci man ngir ma defal leen ko dafa am ay terme yu may jëfandikoo ci téere bi balaa may dugg ci téere bi dinaa la ko leeral mu ci man pour nga dégg ko ngir téere bi xalil da koy bind lima bihil fatwa ngir kiy fatwa si ngiir bi mu sukkandiku si te ngiir gi ñaar lañuy ñuy fatwa yi imma xawlul mashhur wala xawlul raajih xawlul mashhur mooy lu ëpp si ngir bi lañu jàpp xawlu raajix mooy loo xam ne dalil si si la nekk même di nekkee ñu ëpp sax jëlul loola lañ tuddee xawlu raaj ak xawlu masuur maa kasura qaa'iluhu ak maa qawiya daliluhu xalil moom ñaar dong lay indi imma mu indi masuur wala raajix lima bihi lfatwa léegi nag say xalil am ay istilaaxaat ay terme te terme nag boroom xam-xam foog nga xam ko boroom xam-xam balaa nga koy liiral aw téere foog nga liir luñ tuddee muqaddima téeréem bi pour nga xam moom ban mën hëj lay doxee ci téeréem bi ab bépp bépp taalibe ilmu balaa muy liiral kenn foog mu xam ko moo tax ibnu taymiya di wax ne li kulli fannin lugatuhu bépp fann am na langue gu ñuy waxtaani ulama al xadis am na am na langue gu ñuy waxtaani ulama usulul fiq noona ulama naxwu noona kon nit ki balaa ngay maîtriser aw fann foog nga dégg seen langue yi seen terme yuy waxee li ñu tuddee al istilahaat loolu moo yóbbee àllak na wi ci téere bi ar rafu wa takmil nee na képp ku déggut istilahaatul ayima koo koy warta wax warta wax lu ma ta xam la xalit nag bugg laay jàngale moom yan manhaj ak yan istilaaxal lay waxee ci téeram bi pour nga mën koo xam dooy liir loo sonn kenn na ko Ibnu Xajar dafee ci Buluuxul Maraam ci muqaddima téeram ba loolu la xalil liggéey xalil heure bu waxee xawlay ni wala axwaal lu ci namm lenn dong la mooy ñaari wax yi ma indi man xalil ñaari wax yi damaa gis ne dafa dëgër loolu ci ngiir wi te gisuma ñoom ñaar ban laa mën a lëngal ban moo gën a wér moo tax ma indil la ko min baab al amaan al ilmiya xal bugg laa indil benn rek bàyyi la beneen bi te beneen bi dëgër na te moom xamul ñaar yi ban moo gën a lëng moo tax ma indil la ñaar yëpp nag tey loolu heure bu amee rek la ëpp ñaar yëpp mun nañ koo jëfee si ngir bi lu ëpp day nekk masala ijtihaadiya boo xam ne ñaar yëpp mun nañ koo jëfe gis nga mazhab bi dafa am lu ñu tuddee al qawaid at tarjihiya heure boo demoon ci manzumatu butul xiya rek mu ngi fay jàngale yan qawaid la ñuy tarjih si mazhabul maliki loolu doo ko xamul nag yow lii problème lay nekk si yow di nekkee xamul wala waaye ñu xam xawaayidu tarjih fi madhab al maliki li nekkul seen problème ñoom bi mu gisee ñaari wax yu xaw a juwaloo xam ne yan yoon la ñuy jaar pour mën a tarjih ci madhab bi waaye yow mu ko xamul problème lay nekk si yow parce que yaa yaa jàngut kon tuumalal sa xel waaye bul tuumal xalil xalil moom lam def moom xam-xam moo ko nangu may fekk ne ñaari wax ñaari wax yoo xam ne xalil nee na man sama ittila xaw ma ñaari wax yi ban moo gën a lëng ma indil la ko fi man ma heure bu waxee xaw lay wala axwaal amma at taraddud heure bu ko waxee tekkiwul yow ni ñu ko déggee ci luxul arabiya déedéet at taraddud tekkiwul loolu de at taraddud xalil nee na du ko waxee mu ngi ci namm loolu leen tuddee istilaax mooy terme bi doo ko yóbboon ci beneen fan amaan na ñu koy déggee ak fan bi lu koy déggee nekkul benn xalil moom indi baatu taraddud ci arab noo koy dégg ak lu ci xalil namm nekkul benn kon da ngay déglu xalil moo wax la la si namm xalil ne heure bu waxee taraddud imma ñaar la imma wax ji ñu indi ma indi sama téere bi ñu mujj ñi ban koy tuxal ngir jëlee ko sa ña mag ña te ña mag ñi mooy ñi ñëw laata ibnu abi zirin al xayrawaan yi waaye ñëw ci ginnaaw abi ibnu abi zirin al xayrawaan yi lañu tudd ñu ñëw eh, laata ibnu abi zirin al xayrawaan yi kon ibnu abi zirin al moom mooy faasil bi mooy teqale ñu mag ña ak ñu mujj ñi mais ñu njëkk ña ak ñu mujj ñi xalil mën heure bu mu waxee ak taraddut maa ngi ci nam mu ñi nga xam ne ñëw ñu njëkk ña waaye ñu mujj ñi ñëw tuuxal a wax jëlee sa ñoom te ñu ngi ci am taraddut ñu ngi ci am taraddut wala sax masala bii ma indi mutaqaddimil madhab mooy ña jiituñu si madhabul maliki amuñ ci wax kenn amu ci benn nas ñu mujj ñi rek ñoo ci wax moo tax mën a taraddut kon loolu istilaax xalil la du waxee law law maa ngi ci nam mu ila xilaafi madhabi maa ngi ci na mos ci biir ngir bi am na xilaaf dafa am lu ñu tuddee xilaaf xilaaf ñaar la am lu ñu tuddee xilaaful aali li foog nga xam ko ci ilmu usulul fekk yi doo ko xamul rek daanaka doo mun a dem si masa ci bunt bi ñu nekk kilaaful aali mooy masala sàngam am na werante benn boroom xam-xam di ko jéem diraasa di ko jéem a jàngat du jàngat ne moom du topp benn mazhab moom dalil doo nga lay wër mun naa nekk ab maaliki sax waaye moom dalil lay wër ci mbir masala bi du gisee dalil bu gën a wér même di nekkoon ab zahiri yi sax moo ko wax moom ñoom lay topp loolu ñu tuddee xilaaful aali loolu ñu si bind téere bëri na lool ku mel ni Ibn Abdul Bar kitaab yi tamhid wala ngay xool kitaabul majmaa li li li al imaamu Nawawi wala Ibnu Taymiya si majmaa al fatawa wala Ibnu Qudaam al muwaffaq Ibnu Qudaam kitaabul mughni wala si leen téeram amaa kitaabul wala kitaabul muqni ama kitaabul muqni mu da koy bind alal madhab nga xam ne madhab bi lay topp yenn saa moo tax gis ibnu xudaama kitaabul al muqni mu indi benn dalil fii mu jëm ko fi wéral ngir ngir bi moo ànd ak dalil bi mu ñëw ba si beneen bërëb même dalil mu jëm ko wéral jëf ngir ngir gisul loola foofa mi wax wala naa kenn mu ko waxee si muqni kon lu ñu tuddee la aali am nañ si benn téere am nañ tuddee nag xilaafu naazil moo tax borom xam-xam yi si si feq seen ñaar la amna ñu bindi alal madhabi am ñu bindi alak dalili bi mana ñen ci borom ñu bindi téré ngir dañu top sen ngir fi rek sen duñu genn ngir bi ku may Ibnu taymi Sarhul Umda danaka du genn ngir bi amna ñu xam dañuy bindi téré di topp dalil lañ khilaf xilaaful ali am lañ an nazil khilaf an nazil may ngir bi ma nek mo xamné maliki la wala safi'i wala hanafi wala hanbali werante gi ci la nek ñun wa ngir bi ñoo ci werante لون أربعة مية بيرن تنا دنكوي خنيار لون تودي خلاف قوي لون تودي خلاف ضعيف لون تودي خلاف معتبر غير معتبر الآن دي كتاب الإحكام من فعل رلي خلاف بوا خم نقوي لنا خلي دي تدخل كتيرين بي من خلاف خلاف ودعر بوا خم نياري وخي يبو دخل سيفل نينكو متى خلي جوني ندو أربعة مية اختلاف ما عندنا مخلاف بوا خم ندفع دفع سيف سنجير بي نياري وخلا تبني أم نكو كسيول loolu ñu tuddee xilaafun qawi si ngir bi am lañ tuddee xilaafun daif may xilaaf moom dafa lott kenn du ko jël kon yow li nga tuddee njuumte du njuumte loolee sa njuumte la may yaa gàttañ lu sa aliwa waaye doo gëstoon lu ndaw rek alal aqal sa balaa ngay wax nga dem suruxaatu xalil xalil ñu ko saraa ak ñoo bari lool doo fa delloo rek ci mu muqaddima téere ba rek ñu saraat téere xalil ñu ngi koy leeral foofa danga ko fekk sa buux ya waaye jékki-jékki jógee fee rek ñëw rek bu a dal si kaw xalil te xalil doo dalee si kawam mooy yow ngir bi moom bàyyiwu fi dara ko képp ku ñëw ci ginnaaw xalil moom tamit xamul dara maanaam moom te ay njoome wax ngir képp ku ñëw ci ginnaaw xalil moom ci téere xalil bii la sukkandiku ba mun a taalif téere moom loolu mat xel la dëgg la xalil munu munul wax ne muccul ci ay njuumte am na ay njuumte loolu borom xam-xam yi ci ginnaaw ñoo ngi koy leeral mooy lu ku lu mel ni euh, المكنة سي سي مقفل الخلي مون في لير يين نجومتي وامنا خلي تاب نسي إيه، نعم نخلي دي ينسا دي توخل نا واخ جي مون كتاب الجامعة بابن يونس دو فا ديمي دو فيك ولا نم كو واخي نوكو ابن يونس اندي نيكول بيان ولا خلي ينسا مو جومني واخ جي مي مسور تا فيك نيكول مسور يين ينسا امنا سي سي تو لول مسألة تو مسائل يو توتي دونغلا عندك لول لول نجومتا لا باسكو بروخ خام خام بي بيندي موم فا نجوم لول موي لول موي اصل بي ka ka juumul ci mbindam kay ko mooy génn aslu bi lu moom daanaka karaama lañ koy tudde waaye bind moom aslu gi mooy da ngaa war a juum ngir basaar nga nit nga da ngay juum waaye bu ko tuddee ay be bu ko réel mel ni dafa subhanallah loolu kenn du ko wax loolu ku ñàkk ku ñàkk jàng rek ak koo xam ne daanaka xam-xam moo bëriw rek mooy waxee nii ko lii leen bëggoon leeral di ñaan borom bi defal ñu fi defal leen ko sallallahu la nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain